asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 4 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci likkaay yi moo xam sunu làmb la moo xam journal bi nga xam ne moo di record la wala les échos ba ca Leewtoo TV fu nekk rek tey ay xibaaru làmb xëy na fa bu dee yëglikaay bi nga xam ne nag moo di sunu làmb la moom roi des arènes ba ca parcelle di mooduloo daal la xëy tey wan ñu ko mu mel ni ki nag moom fi mu nekk nii day écrém ba mu nekk di rock énergie moom ay mbir lañ ko tegal yoo xam ne ni daal mooy seen ay bëgg-bëgg mbir Modou nag man leen koo defal ba ca jëkk mooy mu daan ki nga xam ne moo di Ama Baldé daal di itam nag teg ca Balla Gaye 2 daal di jël nag record ba nga xam ne nii mooy bu yaxi jub Yékini ba loolu daal mooy bëgg-bëgg ñi nga xam ne nii moo di waa rock énergie jëmale ki ne ni moo di xarañ la le roi des arènes yëgle kay bee xëy tey ñëw wax nu ko leneen loo xam ne nii moom mu ngi ci yëglikaay yi muy ka nga xam ne nii moom moo di wala ñi nga xam ne nii ñoo di arbitre yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci garab fi mu nekk nii day mu mel ni ki fi mu nekk nii day mbir ya moom wala tension ba mu ngay gën a monte mu mel ni ki daal mbir ya moom ah mu ngay gën a tardé wala boog mu ngay gën a xëccu jëm a jëm ca kaw waaye nag jàppal yëglikaay bi ne leer ba leer rek arbitre yi ndax nekkul di leen yoot ay risques yoo xam ne nii daal mu ngi leen di yoot yoo xam ne nii day maanaam jàppal ay wala boog ñu dàq leen raje leen maanaam ci mbirum arbitrage mi yooyu yëpp daal mu ngay am mu mel ni ki fi mu nekk nii daal bu bëggee dégg-dëgg moom coowal arbitre yëpp mu nga ne gàdd ni bu kenn xamul Thierno Ka nag mu nga xëy moom tamit di ca wax waaye feneen foo xam ne tamit fekk nañ ko fa moom nu Ka moo ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di léese ko mu mel ni ki moom nag daal fi mu nekk nii daal mbir ma daal daa jàpp ne coow li ñi di coow nii jëmale ko ci làmb ji wala boog ci seen bi jaru ko fi daal wala lu fi jar coow la gisul jamono jooja nag léese ko mu ngi ñuy ne day li leer ba leer ndax coow amul ndax nag li leer ba leer absence yenn membre yi nga xam ne nii day dañ leen a copte ñu bokk ca seen sama war di doxal ñëwatuñu ak garaf bi nga xam ne arbitre yi garaf garaf nañu ko waaye ñu ne déet ne waay ay ay pétition ngay jóge ca bitim réew di sàkku nag docteur Alioune Sarr mu wàcc làmb ji maanaam daal bàyyi ko dem ñeneen mën a ñëw léegi ko moo xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu waaye bu nu continuer jóge ci loolu dem fa nga xam ne nii moo di record tey nag Abou Ndour moo xëy ñëw ci roi des arènes bi Eumeu Sène mi nga xam ne day ñetti combat ci juróom-benni at moom la jongante perte couronne roi des arènes ba moo tax nag yëglikaay bi ñëw tey ab gëstu la def ci moom moom Abou Ndour ak Eumeu seen ndax beneen année balance mënta am ci moom Max Mbargane ne na day daa jàpp loolu su amee jàpp na ne sax est kon du doon gëneel ci moom waaye sawru faal moom gisawut noona moom la mu gis daal mooy nee na bu defee année blanche moom moom catastrophe la ko jàppe sawru faal bu giri ndakaaru moo wax loolu ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record ñeneen ñaara ngi moom ci record di fa waaj jongante muy diggante Fara ak ki nga xam ne moo di Bébé saalum moo tax nag yëglikaay bi ne day Fara mission commando la jëm bébé saalum nag moom jamono jooja moom la muy waajal mooy ci àjjuma ji nu jëm daal entraînement daal la fa yéene ubbil ñi nga xam ne nii moo di presse ba ñu ñëw taxaw fekke ko waaye bu nu delloo fa nga xam ne nii day moom moo di ci yëglikaay bi di sunu làmb yëglikaay baa ngi ñuy xamal day le 8 mars ndax kii nga xam ne nii moo di bébé Saloum mën naa arrêté dox gi nga xam ne nii moom la Franc di dox boobu ba tey te mbër mënu koo daan fi nga xam ne nii mooy ca làmb ja Franc nag jamono jooja moom wala tey ji nga xam ne nii mooy la kaat daal ca parcelle fa la woote li nga xam ne nii moo di open presse am ngir fas yéene nag tàggatoo ak i supporteram waaye itam wax ak presse bi bala moo bëri ji pour le huit ñeneen ñoo xam ne moom bëre nañu ba pare waaye ba ñu bëree ba pare day am na lu leen ca fekk ka nga xam ne nii moo di tigoo xaritu yaayam ak booy dakaar ginnaaw ba ko booy Dakar daane nag booy dakaar moom dagg nañ ko maanaam juróom-ñetti junni quarante mille francs daal nangu nañ ko ci li nga xam ne nii moo di ab kaseem la ko ko waral nag mooy taabu yàgg bu mu jël di préparer ay mystique ba jël fa ay minutes yu baree baree baree bëri waaye leneen loo xam ne wala ka mu ko seqaloon ci yëglikaay bi di sunu làmb tamit muy tigoo tigoo moom ginnaaw bañ ne daa saagab arbitre moom licence am la ñu mujjee fa nga xam ne nii mooy ca seen sew ndax nag la mu def lañ jàpp na xëy na kon du aw yoon moom Tigo daal loo ci mën a dégg moom licence ba nga xam ne nii moom lay bëree fi mu nekk nii daal daa mel ni moom teges na ca loxo yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi muy saa combi jóob ak itam lu jëm ci wàllu kaw Kaolack ja daal ak ay wax yoo xam ne ni jëmale na ko ca wala mu ñëw di ko ca yaatal yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax nu ko waaye dañuy dellu léegi ko fekk fekk nga xam ne ni moo di Gris Bordeaux mu mel ni ki nag ginnaaw accident ba ko daloon daal daa ni fi mu nekk nii dey day Gris aptun nag ngir war war a wàcc ci làmb ji dal di mën a bëre waaye bu nu demee fa nga xam ne moo di Leewtoo TV le 15 mars nag daa ni lu muy gën a jubat coow la di gën a yokk diggante gàmmu géy ak soq gàmmu nag moom mu nga fa di wax ak soq ne na ko leer ba leer day na jàpp ne daal moom mbër la am te mbër lay bëreel gàmmu nag ne jox naa ko cër ba mu doy sëg waaye nag xam ne daal buñ ca yeggee moom defante ba moom lu mu ci namm namm naa ci lu ko ëpp ndax nag duma ko may dara waaye mu mel ni kon daal bu yeboo gàmmu itam na xaar de ndax nag wax ju ne moom am na tontu waaye dañ fay jóge dem fa nga xam ne nii mooy ci rëg-rëg ak MMA ba ci yëglikaay bii nga xam ne nii day moo di record rëg-rëg nag tey jii daal lay wàcc ci réew mi nga xam ne moo di Sénégal jóge jóge États-Unis d'Amérique bu ko defee nag ngir mën a waajal le 3 avril ba nga xam ne daal yëglikaay bi di record mu ngi ñuy xamal ne tey ca la fas yéenee nag jongante combat MMA bi waaye bu ñëwee nag dina fi toog ba le 29 lay déparaat maanaam le 29 mars lay départ fi wutali fa nga xam ne nii daal moo di Genève Genève ga nga xam ne nii mooy ca Suisse ngir fa yéene nag jongante ji ca MMA ba waaye li leer ba leer daal jàppal MMA booba moom dañ cay des ndax nag kii di Bombardier moom mu ngi bëgg a rey tubaab yi ndax ka nga xam ne nii moo ri ceinture bu mag ba moom la jàpp ca Angleterre tëj ci koo tëj ca tëj ca tëj ba mu mel ni tiga dege wal ko ba mu mokk jël ceinture ba ànd ak ka nga xam ne nii moo di basoka wala boog moo di Bombardier 2 ñaari tur yëpp boo ko ci jox day dem mu mel ni ki daal kon Bombardier fi mu nekk ni yoon wa mu jël baax na lool kon ñu koy ñaanal mu continuer ko koo jàpp daal tëccal rëg-rëg yow itam boo ca yeggee na metti na mel ni mbàccum gerte dóor leen ba ñuy bëgg a dee ki ñu war a dóor nag wala li ñu war a ñaan mu jóge fi mooy coronavirus bii dugg ci réew mi ay coronavirus bi yal na nga dellu fa nga jóge woon te nga tubaab yi nag ñoo ko fi indi waaye loo ci mën a dégg olof a ko wax li am solo daal mooy comme colonisation baa am xanaa kon ci koom gi ñu coloniser feebar tam moo tax xëy na ñu bëgg ñu cee coloniser waaye loolu moom li am solo daal nanu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla musal ci coronavirus bi ku mu dalul yàlla bu mu la dal ñi mu dal yàlla ñu wér ña ca dee itam yàlla na seen borom jéggal looloo fi des di ay wax yàgg maar waaye loo ci mën a dégg gars yi na namoon nañ ma waaye billaay maa leen raw damaa nopp lu ji nag yàgg ñetti weer nga gëj ko sa kër c'est très normal nga seeti ma madame ak xale waaye ana calis ak jaw ñoom lay laaj bi ma yegg see man. mbokk waa Leewtoo TV di leen di leen gërëm di leen sant Babacar ngay àndoon si revue de l'arène ak yéen si jàngatu arène bi maa ngi lay nuyu di la ziar naan la namoon nañ la lool. <laughs> ndey ko ma fal maa lay fay maa la raw ah naa la yàgg maar nam naa waa Leewtoo yëpp vraiment ah parce que tamit mën nañu yéenay deuxième famille bi. yaa ngi dégg parce que foo xam ne fa ngay xëy presque sa kii yëpp lépp sa heure fa nga koy def dafa naa ñu sa famille la kon na mun naa leen mais tamit na mun naa internautes yi parce que ñoom tamit ñoom ñoo bokk famille man ak ñoom parce que ku ne des fois boo bëggee xam sa bopp da moo tax ñu dellu woon dëkk ba rek xooliwaat njaboot gi loolu la woon quoi mais wax dëgg yàlla buñ sañoon saa yu ñu xëyee leen koy toppal suñu kémta seetu woon xale yi ak seen yaay tamit te nekk tamit te moom xam naa dama nga ko lool ndax ñëw nga moom leer nga moom naaj moom yàlla yàlla xeb doole ni ñëw nag si sunu laam sunu laam dafa xëyee nag ak ki nga xam ne moom mooy euh, Modou Lo nee nag Modou Lo bi muy bëreek ak euh, combat bi mu war a euh, jëflante ki nga xam ne mooy Ama Baldé objectif la si am benn mooy daan Ama Baldé ak ki nga xam ne daan Balla Gaye ak aussi égaler recordu Yékini nekk mais record Yékini nag maanaam Yékini toog na bu mu nekkee roi quinze ans te daanul nañ na record euh, euh, Modou Lo loolu daal la fas yéene baat euh, Babacar. waa maa ba parce que daal loolu mooy sas yi. waaw li am solo nag mooy Modou Lo yaakaar naa ne mais balaa ñuy lool sax dañ koy nuyuwaat encore une fois parce que dégg nañ fan yi que ni soxnaam am na bébé bu góor di ko si ñaanal yàlla mu jig ko xam nga parce que tamit euh, yaakaar naa ne loolu am solo la waaw kantaan nag mission yooyu ñu ko sant battre Ama kii ni waaw loolu moom liggéey koy maye itam mën nañ ne moom mu ngi ci liggéey parce que tamit par rapport ak ni mu nekk si làmb ak comportement bi mu nekk tey roi des arènes hmm, ne kon moom bu ñu ko sasee mission yaakaar naa ne dina ca bay waaram nekk gaag wala nekk nag wala ñàkk a nekk nag loolu moom beneen affaire la parce que yaakaar naa digganteem ak Ama li mu bëgg nii li olof naan li mbëtt mi bëgg la Balla Gaye itam xam daan waaw xay na nag xelam mu ngi ci balaa bàyyi làmb jéem a fayeku loolu Yékini itam Modou idole la Yékini idole la ci moom xam naa ne bëgg na tey ci reefam lépp lu jax ya def rek mu ñëw def lu ko raw daal waaw Babacar ñu dem nag si beneen euh, combat combat muy ko moom moo ko tëgg euh, neen ak ki nga xam ne moom mooy Franc nee ñi nag est-ce que a arrêté kii li mooy Franc ndax ba léegi moom mooy mbër bi nga xam ok euh, Babacar nag ñu ñëw nag si gala le 8 mars bi nga xam ne moom la Jamaïcain James production tëgg diggante Bébé Saloum ak ki nga xam ne mooy Franc journal nag sunu mi ngi laaj nee nañu est-ce que tey ji Bébé Saloum mun na freiné ki nga xam ne moom mooy Franc maanaam mu jox ko def tam bu njëkk nekk si loolu day le 8 mars la dara am Jamaïque yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla mu réussir ko pour le 8 mars ah waaye nag freiné Franc xam naa ne ah waaw du yomb parce que tax mooy que ni Franc yaakaar naa ba mu duggee ci li li affaire Franc defe naa ne gëj nañ ciy déggub jëllam ba ko Serigne Ndiaye dër yi moo xam ne actuellement mu ngi ci diggu làmbam di def carrière ni mu ni mu war a jaaree actuellement ci lancé boobu la nekk mais nag am na adversaire boo xam ne capable na pour daan sax ku dul muy bébé Saloum parce que mbër mu mag la sport nag dafa am euh, des fois nekk ci niveau bu kawe bi des fois nga wàcc mais bébé Saloum du dafa wàcc pour candidat mënu la bëre wala nangam nangam sport nag moo tëddee noonu parce que mbër mu mag la encore une fois bébé Saloum damay rappeler loolu ku gis mbër yi mu daan. yaa de ak façon yi mu leen daane di nga xam ne mbër la bi nga xam ne mu mag a mag la te itam ci côté communication boo koy dégg di nga xam ne kii wax yaa ngi dégg encore une fois daal boobu commencé ci bismillah jàpp feddewaat suñu jàppale suñu frère suñu rakk jamaïcain di wax ne xale la ba nga xam ne nii ñëw na si làmb di góorgóorlu ay nit di ko jàppale kon nañ ko gën a jàppale parce que xale la mais bu ñu compter ci atam wala ñu compter ci tuutaayam mënoon ndax keral li ma gis Géejawaay moo am ci ñaari mbir xëy na waroon teew signature Bébé Saloum xëy na jàpp na ne warul woon euh, ërëm euh, xaar na ba yàgg mu dem pour man Bébé sax war war na dépasser niveau boobu parce que mbër mu mag la yaa ngi dégg moom war na mën a mu sax lu ëpp lool te taalibi Seex Abdou Karim la Baye Fall la ñuy nuyu ñaari mbër yépp di wax ne que daal dimanche incha allahu rabbi le 8 mars ak jams ah dana neex dana yëngu arène national Babacar nag euh, temps yi nga nekkee woon ak yaay lamb ji yëngu noonu lool ndax arbitre bi say xarit ñoom daal ñoom noo lëmbee euh, <laughs> arène nationale bi nee ñu nag ki nga xam ne mooy Baba euh, ba ki Sitor ak ki nga xam ne mooy Malick Ngom daan leen entendre samedi si commission discipline et pénalité bi nag mi ngi ne ñetti mbir moo leen moo mën a seen kaw maanaam jox leen avertissement ak suspension wala boog na rajee leen radiation nag soo ko déggee mooy na leen di dàkk dootuñu arbitré ti seen giiru dund waaw ma arbitre de man samay samay soppe lañu wax dëgg yàlla ndax yàlla def na loolu muy Malick muy Sitor muy Babacar muy ki nga xam mooy Mathia ay Matar ñoom ñëpp ay ak ñoom ñëpp ay borom baax lañu dafa fekk ne que nag loolu lépp pour man radiation wala suspendre pour man mën na ñàkk. noonu waaw avertissement sax na naa ko nangu mais dàq ak yooyu moom d'accord ma ci man lu nit ki liggéeyloo te ne ko doo wax. non non non nit ki su amee lu ko naqari wala mu gis ne ni ko jàppee ni ñu koy traité du noonu am na droit génn réclamer ko mais yow kilifa gi ko yilif nekkul ne dàq rek war doon sa solution ci moom. non non kon lan mooy démocratie la lu xew nit ki kay déglu ko wax ko yow li tax lii am lii am la nga nga jiim ko li mënta ne nga ne ko lii mënta ne ngeen continuer parce que ñoom ay responsable lañu boo xoolee la plupart des arbitres ay jàngalekat lañu kon ñoom xam nañu nit dañuy yar ay nit di leen def ci ñoom xam-xam kon duñu ay n'importe quelle personne encore une fois ñi jiite làmb ji waxtaan wi nañ ko gën a privilégié que dàq wala wala yooyu yooyu moom pour man amul njëriñ euh, fii Afrique bokk na ci li ñu gën a tardeel nit ki ngeen di seq dara ci wàllum liggéey lu mu mën a doon te jox la mu yelloo doo ko ko defal loolu bokk na ci li ñu tardeel fii Afrique par rapport ak réewu tubaab yi maanaam liggéey ñaq jariñu la Cheikh Ibrahima Fall doon wax nit ki boo ko ñaqulee balaa ñaq ma wàcc fay ko la ngeen waxante bu demee ba xeeb na nag la nga koy jox da ko da koo xaw a xeeb ngeen waxtaan ca boo ko ko mënee yokkal nga yokkal ko ci waxtaan su mënta nekk nga xam ne loolu mënta ne bu bàyyi am moom bàyyi nga uti keneen mais encore une fois daal na ñuy bàyyi veye ci ñaqi jàmbur yi nit ki bu la ñaqalee jox mu moom loolu moo gën mooy tax law mooy tax yow la nga yor am barke mais la tant que loolu amul wallaay da ngay sonn sa bopp mais li nga yor du mës a am barke loolu war a am sax nag parce que arbitre yi wax dëgg yàlla dañuy sibir lu métti métti parce làmb arbitré ko yombul arbitrage moo jafe yaa dégg kon encore une fois CNG dañ leen fi teg ñoom pour loolu pour ñu gérer affaire yi mu jaar ci aw yoon te defe naa docteur Alioune Sarr itam nekkul tey koo xam ne nii kuñ naan dafa amul xam-xam wala nangam ndax defe naa li mu yore naa loolu ku amul xam-xam ni woo kilifa yàlla du la jox ndomb tànk yooyu kon nañu waxtaan dàq bi dàq moom du solution. Thierno Kane tamit mi ngi àddu tamit si loolu euh, foofu tamit si sunu laam moom moom daal ñaawlu na trop li nga xam ne moom la arbitre def weekend bi mun nag mosoo gis kenn fenn si àdduna bi mu naan euh, euh, manifestation ci am parce que arbitre yi nañu nekk grève moo tax ñoom tamit wut nañu solution bu weekend bi ñu jël ay arbitre teg ko pour mun a sauver journée yooyu waaw loolu moom d'accord xëy na loolu mësul am waaye nag damaa yaakaar ne a ko wax a a faatu loolu moom mën ta ñàkk kantaan nag euh, waruñu koo def wala war nañ koo def comme def nañ ko ba pare yaa ngi dégg li ci des nag mooy nañu waxtaan waaye yaakaar naa waroon nañoo bañ a yegg si foofu ñoom ak arbitre yi li waroon a am dëgg-dëgg pour man su amoon est-ce que dinañ yegg si ci greffe ba ñuy uti ñeneen loolu yaakaar naa itam lu jar bàyyi xel la waaw waxu xëy na nag nañ arbitre du gerew wala ah mais est-ce que kuy liggéey amoo droit greffe man de yaakaar naa képp liggéeykat bu mu mën a doon boo gisee lu la neexatul wala nga jàpp ne fii ñu la teg foofu am nga droit greffe waaw Afrique nag dafa xaw a doy waar parce que dafa mel ni affaire royaume doo comprendre daal affaire yi doo xam nu mu demee. Babacar nga noonu yaa leen ko namoon mi ngi ñëw nag si record nag moom mi ngi samp laaj ne euh, ñetti combat def si juróom benn at te pare si diggante boobu perte na si couronne ne ñu Eumeu Sène est-ce que tamit dina mun dund si saison blanche fekkee ni ren def na saison blanche kii nga xam ne mooy Max Margan a rebondir fii mooy Sourou Fall nekk manager général Dakar moom nee na la su fekkee ne Eumeu def na saison blanche ren waaw loolu daal loo ci mën a dégg bu ci ne ki muy max muy sawru ku ne yàgg nga si làmb am nga ci am xam père max nag bu waxee na xëy na toog bi mën na ci moom xëy na moom jàpp na comme par rapport li mu jógee défaite bi mu jógee ak ni mu ko arrivé yaakaar na loolu laaj na tuuti benn temps nga dallu ko xoolaat sa bopp xool fi ngay aw pour boo ñëwee mën a taxawaat yaa ngi dégg sawru fall jàpp ne su bëriwul loolu catastrophe la waaw na nekk ah mu a bëree xëy na du gën ci làmb parce que bu ñu sañoon ëma seen day wàcc ci làmb ndax nekk na mbër bi nga xam ne nii tey euh, defe naa am na lu bëri lu mu def ci làmb Sénégal par ba ci équipe nationale kon defe naa ñàkk bërim kenn du ko souhaité mais nag xëy na actuellement mbir yi moo moo am nu mu tëddee quoi fekkee nii nag si sunu laam dañ laaj est-ce que Bébé Saloum dina mën a freiner ki nga xam ne moom mooy Franc kii fi nga xam ne nag mooy record ni nga wax ni miss euh, Franc en mission commando maanaam daa continuer si si lancé bu nekk maanaam daa garder invisibilité Babacar waaw combat la am de waaw invisibilité boo xaw ma invisibilité ah lañ koy wax maa ngi jéggulu waaw maanaam ñàkk daanu boobu mu nekkee waaye loo ci mën a dégg nag am na combat waaw waaw ndax loo ci mën a dégg am na combat moom Franc nañ ko ko wax de ndey kumba maa ngi nii de eh, aja Babacar ngi noonu daal comme li nga ko waxee rek Babacar ngi noonu nee ñu nag Reug Reug dina ñibbi si ginnaaw mu defee ay fan foofu États-Unis di ñibbi si euh, fii nii te suba daal wala boo egsi na boog fii nga xam ni moom mooy Sénégal Babacar waaw Reug Reug bu ñëwee ngir préparer MMA am jooju daal ñu koy ñaanal yàlla rek mu réussir ko comme la ma waxoon rek man daal ku ciy jongante ku bokkut ci réew mi yàlla na nga ko gañe yaa ngi dégg comme la Bombardier bëri ki dem ci Angleterre Reug itam doomu réew mi la mu ngi dund tey beneen niveau maanaam ci beneen sport ci beneen euh, euh, xalaat ak beneen doxalin loolu moo lay wan ne tamit mbër yi encore une comme li may wax chaque rek mbër du ñu ay dof de c'est des responsables xam nañ bu baax li ñu bëgg ndax yaakaar naa ne tey Reug Reug mu ngi entre États-Unis Sénégal Suisse ak nangam ak sangam loolu mooy sportif de haut niveau tey mën nañ ne sportif de haut niveau la moom Reug Reug parce que yaakaar naa le 3 avril la war a jongante ji fa nga xam ne mooy Genève waaw Babacar ñi nga xamal record mi ñi nga xamal tamit si xalima abu nu nee nañ ki nga xam ne mooy Franc tey dana def open press am adversaire am na moom àjjuma lay def open press am waaw moom day open press moom bébé Saloum nee nañ day ubbil press bi daal entraînement am loolu la wax Franc nag mooy def tey open press am ca parcelle mooy kon daal le huit ba moom fi mu nekk nii xeeñ na daal waaw ñu ñëw nag jeexle ak les échos les échos tamit ñëwaat na aussi si Thierno Ka Thierno Ka daal li mu gis daal si grève arbitre yi nee naa jarul nit ñi di si coow parce que loolu amul coow y' a pas de y' quoi fouetter un chat comme ni ko nasaraan di waxee. waaw loo si mën a dégg daal xam nga wax moom bu xasee jóg faw nit ñi wax ci. parce que nag mbir bu demee ba dem ci ay journaux arbitre taxaw ni ba euh, arbitre wuñu ah sénégalais yi faw ñu wax ci li am solo nag encore une fois ñoom ñi jiite ay responsable lañ encore ay kilifa ñoo fa ne ñi ñu jiite tamit ay kilifa lañ ca fa ñu ne kon li am solo mooy na ñu waxtaan ci waxtaanu kilifa kilifa ku ci ne la nga moom ñu jox la ko man daal li ma mënta nangu ci rëb jàmbur nga di ko ko xañ te mu leer ne lii ay yëfam la nit itam nag du laaj lu mënta ne waaw ànd moom ne ñaar a koy yàq tege lees man ñu bañ ko waaye santaane lees manut dina yàqub ànd su kàddu yi rafet yooyu leen tàggat leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu suñu yaay mais soo nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu Astane Chéri ak fi nga xam ne moom mooy Italie nuyu samay dem Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne mooy sama xarit sama doom bopp Grand Fallou nuyu ki nga xam ne mooy Khoudia Seck Chéri Asek depuis Italie yaa ngi si biir Abdou Gueye Baye Fallou jàmm ngay la Papa aussi depuis États-Unis yaa ngi si biir nuyu ki nga xam ne aussi mooy Aliou Ndiaye depuis euh, Italie aussi maa ngi koy nuyu Babacar waaw day si teg Ramos Sergio Ramos le grand capitaine. félicitations seen victoire bi capitaine du monde Sergio Ramos Zinedine Zidane c' est le meilleur entraîneur du monde waaw ñun ku ñu félicité tamit ñu félicité suñu bopp mu ngi nii waaw club bu mag bi ma ciy bég di nuyu ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo ñuy suivre à travers le monde ci Leewtoo. classico doo ngeen gagné de. waaw xam nga da nga boobu yow nag yaakaar naa dese ngaa xam am xam-xamu sport classico ci Espagne beneen affaire la ci monde bi ñëpp a koy suivre dañ koy jënd fay. loolu moo gën a seer sax coupe du monde bi ngay wax. ay ay classico PSG ah, Marseille classico. non non PSG Marseille loolu petit classico la. baaw ko tàggoo la. ah voilà man ba ma woy ci football ñu wax de ma wax la dañ. du rek laa xam. dama lay wax man tamit làmb laa xam. ah kon xam nga Babacar xam nga looy def xorom da caa baax te xorom nag bees ñam bu ñu xoromul de. tuuti yaay sax yaa ngi si biir Asi yaa ngi si biir ba kon boog ba suba incha allah. làmb la de ñaari xale la.